ko tegoon ci yoon bëre leen bëree guñu noo bëree guñu noo bëree guñu waaw ah eh, waay bul fàtte ne é o le premier mars ah weer bi jigéen ñee ko moom eh, waaw waaw naata jigéen ñee ko moom premier février É bi jigéen ñee ko moom René Saro joor na léegi oh la la dana nga door nga daanu day yooru jël day yooru day yooru day yooru laa ilaha illallah laa da koy jël laa ilaha illallah ah René Saro René René Nozero Ousmane Diouf Ousmane. yal na yàlla nangu ziar. namu naa la de ah yow yaay Fatou Dabakh Malick. allah kubar. bés bi yaa bul waxati loolu yow. <laughs> ndeysaan Ousmane Diouf a bu RDV. waaw arbitre bi ku baax la dalay daan René René René Zéro bu écrit ku baax la dalay daan René René René Zéro bu écrit